jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di leen jox seen wàcc waaye di leen wax na nag ñoo ngi ci émission bu mag bi nga xamante ni nii mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci mbër yi ndax mbokk yi fan yi làmb ji tijji na euh, combat yi neex na waaye nag tey nag maa ngi fii ci wasaare dalal fii ñaar ñoo xamante ni nii seen combat taxawoon na su ma nee seen combat taxawoon na mu nekk combat boo xamante ni sëñ Modou Niang moo ko tëggoon moo ñaa production moo ko tëggoon avant Covid bi la combat bi taxawoon boobaak léegi mbokk yi mën naa ne combat bi def na trois ans trois ans ñetti at combat bi def na ko waaye mbokk yi dama leen invité di waxtaan ak ñoom ba démb ci guddi ci la am information ne combat bi yàqu na combat bi yàqu na kenn xamul ci yan raison la combat bi yàqoo ndax démb laay waxtaan ak ki nga xamante ni mooy Kayoor mu woo ma ne ma combat bi yàqu na mu ne ko ci nan la yàqu mu ne ma ah loolu lañ ma wax ci loolu daal la jot am information yam mais keneen ki nga xamante ni mooy Sa moom ba léegi kenn woowagu ko ba tax na nag comme que information la te jotoon naa leen boo ma ne na leen ñëw ñu waxtaanee ko xool naka la ñuy trouver solution ma bàyyi la ñu nuyoo mbokk yi ñu wéyal waxtaan wi ma ñëkk ñëw ci nga xamante ni mooy Sa Thiès Sa Thiès nuyu naa la. maa ngi lay fay. naka yi tey yaa am sant bu baax a baax sant yàlla bu baax. maa ngi nuyu ñëpp. waaw di nuyu sama gaay bi ma àndal nii. di nuyu carrière ma war a bëral nii. te mu delloo avance bi ci biir to waxul daal. waaw <laughs> di nuyu ñëpp daal di nuyu waa Kër Masar fi ma jugee xam nuyu naa leen ñoom ñëpp daal. di leen di ziar waa wasaare làmb waaw. <laughs> nice <laughs> kay. nuyu naa la. waaw maa lay fay Ousseyn. auzu billah bismillah inna yàlla. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. ginnaaw ba nu sant yàlla jullit ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur bu wër di sant sama sëriñ si Laat Fall di sant waa Ndar Fall yëpp képp ku bokk Ndar Fall maa lay sant di la fekk fa nga toog la jox la ko di sàkku ci ñoom Baay Fall yëpp ñaanal ma di bëggee sama adversaire muy Sa hmm. di noy fa ma jóge bi Kasoor di nuyu waa Bawol aussi toujours Réfane gi ma dëkk maa ngi bëgg ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mais mais su ma la su ma la xoolee sama xel dafay dem ci tafaatin da ngeen ndoo ci taxawaay lépp da ngeen ko ndoo ñaar dafa am la ngeen bokk. waaw Tafa ay doomu ndey lañ suñu yaay ñoo bokk benn penc bu ñu jógee. Mhm. waaw bokk ci ndey sama grand la sama lépp la kuy son ci man la aussi ku dëgg bëccëg vraiment. Euh, kañ nga dugg si ci làmb. man maa dugg ci làmb 2015 2015 2016 2016 waaw. ñaata combat nga jotee def. maa ngi def six combats. ñaata victoire. cinq victoire benn défaite. benn défaite kan moo la daan. rëm moo ma daan rëm bu yëmbal. rëm waaw moo ma daan. daanaan la de moo ma ganale quoi si làmb ji. sa ñaata combat la nga nga amee défaite. si premier combat bi la ma daan. sa premier combat bi nga dugg si. arène la daan sama deuxième combat parce que sa premier bi dama Mhm. dama blessé mais sa defet rem moom moo ko njëkk jox daal. daanaan la maa koy mhm. nuyu bu baax a baax gën a yëmbal gi. Mhm. Sa Thiès yaa ngi ci ñaata combat. man maa ngi sama dixième combat ak carrière bi <laughs> sama dixième combat man ak carrière. non neuf combat nga am. mais mais mais dama ko dama ko dama ko laaj démb. dama ko laaj démb dañuy waxtaan mënuma combat bi yàqu na te boobu maa ngi diggante ak yow mais waxuloo ma dara. non man dama naka man combat bi man dem comme bu léegi laa koy door a yéeg nii bu ma ne combat bi yàqu na maa ngi koy door a yéeg ci moom. kon yow kenn jotagulaa woo na la combat bi yàqu. non kenn woowu bu moom. taxawoon. combat bi def na trois ans. ñetti at. waaw mais jotoon ngeen a jël avance. si waaw combat bi dafa taxaw rek ñu jot avance. kan mooy sa ménager. Sall. moom tamit daa mel ni Zalba mooy ménager. waaw mais naka la mën a demee Zalba woo ko ne combat bi yàqu na te yow woowoogu la. moo jaaxal te Zal ñu dëkk. est que amul problème ak Sall. ñoom ñaar waaw loolu jar naa laaj li tax Sall waxu ko laaj ko ko. no amuñu problème. Hmm. amuñu problème. ah affaire bi daal compliqué. non amuñu benn problème ngeen jot avance. seen ménager woo woo ko moom ne ko ñëwal jël sa avance te yow kenn woo. taxul Zal ñoo dëkk man ak moom mosuma. jëlu téléphone am woo ma ne ma ne combat bi yàqu na. moom guma ko ci moom ci carrière bi laa ko déggee. dama dégg léegi la mën a delloo avance. ma na koo delloo mu ñu wax ko ne combat ci dara loolu it mën na a sa avance doom day. xam nga lan ngay delloo avance. non non yow mii. yow mii lan man mii nga wax de man mii nga wax de. xam nga ne gis ma nii rek ne ne yow mii yomb na. mbër lii nga toll nii boo tojoon Sénégal xam la yow kenn xamul. yow man. dëgg ma fii da ngay xaar ma pare nga wax. waxal soo tojoon Sénégal xam la mais yow kenn xam la bi ma lay jël xaw ma la. ak micro bi ak kii bi grand combat bi rek moo ma taxoon ma jël la. teg ko fu leer nag mais tamit naka ngay jëlee mbër te xamuloo mbër mi. kii dama koo teg fu leer moo taxoon ma jël ko parce que sax la ma foogoon ci moom ak na ma ko doon du kii. li ma doon pare xëjut ci kii. parce que nan ma ko waxee woon. mais kon da nga ko da nga ko xool xepp. nañ ma ko waxee woon nañ ma ko waxee woon ak ni ma ko gisee bokkut. Euh, su ma déggee wax ji mooy ci 3 ans boobaag léegi yaa ngi ko doog a. teg 3 léegi amut suur bu may tardé entraînement. mais boobaag léegi yaa doo ko doog a gis. maa koy doog gis nii bu dee fen na wax mu mosuma koo teg bët si àdduna xaw ma ko. suñ dajoon ci mbedd mi billaahi wallaahi xaw ma ko. ba dañ ñëw ne dañ ñëw ne la ki ñu lay jox dañoo ñëw nag lii ma ko mais ma gisee nii xam naa ne man li ma doon pare xëjut ci moom. barke alxuraan karim déggoo li balaa xam nga ne gis nii mu toog nii rek nga xeeb ko toujours làmb ja mu def la lu mbër tàngoo de <laughs> déggoo li balaa alxuraan karim tàngoo bu ma tojul woon fen laa la waa de man neuf combat laa bëri arrêté neuf combat te nit moom laa xam yow koo daan sa neuf combat yi li mbal ma ci cinq sa neuf combat yi li mbal ma ci cinq ma limbal la ji cinq cinq ñi ma daan waaw euh, ma xool sama première ko sama deuxième combat waxal lu leer nag si télé ngay wax Bessi Idda ca Camba sama deuxième combat kan Bessi kuy bés si. booy kamu. te mu dëkk fii. xam nga lii laay wax. Eh. ay lambi babat lay ñëw fii di wax fii. xam nga loolu mbër ko xam ci làmb ji. xam nga loolu mbër man kooku xaw ko xam. te mu bëre euh, woon ak te mu bëre woon moo naanoon kii bi kanet bi jox ko Lamine Samba. mbër ki ngay wax xamuñu ko waaw maa yaa ngi fàttaliku. Mhm. kooku noonu kan moo ko ëppoon tuuti ci lamb ji. dafa ñëw ma fere ne ko. mu nekk ci ay tolof tolof noonu noonu nag laa naroon def. sama troisième combat Abdou Gueye bu Tëngéej laa daan. kuy Abdou Gueye. Abdou léegi sa deuxième combat koo daan yow da ngay tëb di yow mbër xam nga lan la kii xam nga man lii a tax billaahi wallaahi erreur laa doon def. Ah. ndax kii. yow ma bëre neuf combat arène sept victoire doo defet yow waruma la woon sa jël man daa am ci li ma nekkoon moo tax ma jël la. xam nga ma wax la tey eh, la tey lan moo taxoon ma jël la nag. Ah? lan moo taxoon ma jël la te xaw ma la. li ma dégg ñu ne yàgg booy sëy ñaari ngëm laa doon andi stade sur boobu. ndaama loolu moo ma taxoon ma jël la dama ko dama la doon daan jël ko force te jë <laughs> combat bi yàqu moo koy andi nga bëggoon ko daan barke alxuraanu karim loolu kese tax ma jël xanaa xamoon ne sëy maa ko gën a danger yow loolu yàq moom la barki arxuraanu karim do li ma la wax dëgg la. xamal lan laa lay xamal barki Serigne Saliou Mbacke bu arbitre soufflé woon dama lay tënk Ibamar bi bool bool yi ñoom Ibamar. loolu noonu nag ci man la noor a nekk. man maa doon tëj Ibamar yow mii. barki arxuraanu karim. yow santal yàlla bu baax. kii danoo njëkk a dox. yow yaa war a sant yàlla 15 jours yàlla laa laa de kii moo a ci desoon première ba. mu ne dafa dafa blessé. dafa daw dafa daw loolu. dafa daw ko barki waxtu yàlla dina dafa blessé ba ma nekkee ba léegi ah sama sama neuf combats mu bëre mësu benn combat mësul durer un mois onze jours une semaine barke Alxuraanu Karim quinze jours matu ko sax mën a dafa blessure un jours une semaine ngay jël ci moom moo njëkk a yàq bi combat bi yaa ko njëkk a deux combats chaque année dama doon bëre deux combats waxal ci blessure bi sama kii gaaw nii. ana blessure bi. wuyu nee na nee na da nga doon fi. fan fii sama tànk. doon li ko dal moo ma dal suñu may sax damay bëre si. Eh. parce que sax xam nga man góor góor rek la war a doon jaarol laa dem jëli foofu benn moteur. comprendre nga ma yàkkamtee dem entraînement gars yi jox ma teg sama tànk bi baaxul ma tarxiis daanu ci benn weñ bu def nii mu dugg sama tànk bi gis nga jour bi ma demee kii hôpital di faju wutuma médical ndax damaa jàppoon damay bëri combat bi bi ma ko fajee ba pare toog ñoo ma ne da nga toog un mois quinze jours door a mun a entraîner damaa jooy ndax kii barki arxuraanu karim combat bi damaa jooy ndax kii ndax li ma naroon def yow ñeme ngaa jooy xam li nga dafa tardé damaa jooy ñi ma toog nii kii moo taamaa la bi combat bi yow yaa ko taamaa la li tax li combat bi lii booba soo ñëwoon bëri si lii lépp si am booba corona ñëwagut Sénégal yow na nga sant corona bu baax aussi. yow yaa war a sant corona barki alxuraan yaa war sant corona. yow gis nii li ma doon pare xëyut ci yow de barki alxuraan gën a xëyut ci yow. <laughs> war na man ba ma la ba may dëgg carrière carrière carrière carrière ma la gisee fii man. loolu du say wax samay wax la waxal leneen day ba ma la ba ma ko gisee nii xoolal wóor na yàlla. kan mooy gis carrière naan kii mooy carrière carrière bu bool di ko gis naan kii mooy carrière yow. waaw <laughs> yow mais mais mais combat bi combat bi ak neex gi mu neex. lan yow yow yow démb. waaw démb bi la bi la bi la zaal ba woowee. Mhm. laajoo ko lan moo yàq combat bi. laaj naa ko lan moo yàq combat bi mu ne ma en tout cas parce que sama dama koo sonaloon. mais est-ce que yàqu na tamit. Saal ma ko jàmm de rëccagoo ndax. beneen promoteur mun na koo bëgg. waaw wax rek yaa ngi toog. nii nii nii rëccagoo beneen promoteur mun na bëgg combat bi. mbir yow. waaw yow mii bi fi muy sonn ñoo koy proposé. man ku ne ñu ma koy man damaa xew macha allah waaw baax na yow kenn xamu la lenn ma taxoon a jël la. yow la maa la ay ko maa nga am ay da ngaa xam. la nag. waaye bëri. nga xam ne dafa ji dafa li ma def. dafa ko li ma def ci làmb gis nga. moo tax nga jël ma su ma fi def doon tous ma jël. man jël yow Zal wala Zal barki yàlla laa bu mu ñëwee ne dama ko eh, damaa demoon am na année boo xam ne dama ko année balaa ndax comme zaaru mbër yi damay ñëw rek ñu ma ne eh combat ma jël ma dem ba année boobu ma toog ne damay xoolaat sama yoon après ma ani balance gars yi ne ma ne boo toogee da gën a tardé sa bopp zaal ñoom proposé ma kii moo tax ma jël la. yow jëloon nga sa musiba alxuraanu karim daa mun ne woon ah? nga sa musiba de. yow mi yaa jëloon sa musiba nag. xam nga ne ñaka xam ni a bon gis ma nii rek ma toog nii ngay am looy wax maa ngi noyoo quoi di wax promoteur yi ñuy seetaan. Mhm. billaahi wa rasuli nan ñoo dimbale ñu tegal nu combat bi parce que sax duy caaxaan. billaahi combat bi li ma ci def dafa bëri waxuma ñu ma avance mais liñ ma fay barke Cheikh Ibra Fall rek laa gëm def naa ci lu Eh. ak ma suul sama ndey ji ma jur def naa ci lu ko damaa jaay samay billet ndax combat bi xam nga tax grand combat la woon te Iba Mar lañu ko doon tëgg ma defoon ci sama lépp mu demee nii lii dafa métti. ba dañ la ko doon barke dafa métti dafa mel ni man combat bi bi ma ko waxee dem nelaw ma biig barke alxuraan parce que tamit def xoolal man li ma daj kii. toog trois ans mënu leen a bëri. aussi ma gis ko mu mel nii mu mel. yow xam nga ne kii dafa jaay ay. <laughs> pour pour combat bi. man xoolal États-Unis laa naroon dem xoolal gars yi ne ma ne xaalis boobu jox ma ko tey jii ma préparé ko kii pour yow États-Unis kan. yow mii xanaa États-Unis Mbour. ban États-Unis Mbour yow États-Unis mel <laughs> kii États-Unis. ah kii dem waajal la. barki yàlla mu ngi dem yow Gambie mosoo faa gën mosoo dem fenn lan. yow de yow mosoo dem Gambie. waaw oh, yow mosoo dem Gambie lan. <laughs> mun naa États-Unis. barki alxuraanu karim li ma génn génnoo ko mosoo koo génn. bër xoolal. sama cousin bi ne étage dama ko ne envoyé ma bu ma yóbbu envoyé ma xaalis carrière kese laa bëgg a daan après man dinaa dem dinaa dem ma sama bopp loolu amul problème. gis naa la xamal leen nag. li ma def ci combat bi def ci combat bi. ci yow mii ma gis mun war na yàlla. barke yow non defal ndànk defal ndànk kii dayoo bi ngay xool ni mbër gi mën na nekk ci moom. kii dama koo xam te xam kii lu mun nekkoon suba goon maa ngi koy xam. da koo xam te xamoo ma. ba ci vocal yi muy wax dama koy déglu te du xamu ko kii xamu ma vocal yow man waaw kan laa doon vocal. eh laaj ko laa doon vocal. eh mbokk la nekkal te xamu ci dara. kon yow yaa ngi woon ci biir combat bi. combat bi dama cee nekkoon à 100 pour 100 ba noppi di ci def. barke Serigne Saliou yow déjà déjà déjà mu ngi nii xamuma mu ne man li ma doon nekk da doon xam dara. di gëstu lan ak lan mais samay mbokk la dëkkal samay mbokk di ma wax li ne ci moom. du dégg di monsieur le maire. barke Serigne Saliou Mbacke xaalis bu bëri la ma joxoon. ba noppi na ma fooy voyager ñu ma jox la essence jox la pour rapido ngay dem di ñëw dama koy sant bu baax suñu maire Djibril caw combat bi daf koo jarloon moom itam ndax dana ma sa grand combat la ma ne ko mooy son premier grand combat fi mu toog la dem ci saalam gën a xaas bu bëri jox ma billaahi wallaahi affaire bi marqué ma trop mu ne ma fooy gene maag Assane maa ngi nuyu Assane bu baax Assane fay otoom lay taal dugal ma ci alet le tour du ma fay dara kooku aw ma fay am kon loolu lépp su amee ak ñeneen ñoo xam ne ku ci mel ni Mbaye Siteu du xaar ma manqué dal may jox naa ma ndax jeex na barke alxuraanu karim ma dolliwaat la ndax ma dolliwaat la <laughs> combat bi xoolal li ma ci def mënumaa toog fii di ko wax. kii daf na bu loolu noonu nga wax de sama yaay Jéena ba Njaay xoolal dafa jaay terrain jox ma xaalis bu bëri préparé la. Ah, xoolal ay rapido ngay wax ñun ay chauffeur lañ rapido ngi nii sama poste. mbër loolu loolu la ay jox ñu rapido jox ñu essence. ñun ay chauffeur lañ. loolu la ñuy wax fu ñu neex la ñuy dem ci àll bi fu ñu neex la ñuy dem mun nañoo jóge fi dem fu ne ñëwaat toog kenn du xam fu ñu dem moo tax ma ko ne kii bu ma ko jàppoon combat ba. sama mère bi ba Ndiaye moo jël xoolal terrain jaay ko xoolal jox ma xaalis bi yëpp préparé combat bi pour yow kese. mbër mënoo baax na bu ñu fa. xam nga lan la xam nga ne rëcc ko ci combat bi bu ñu yegg fa. sa waay Ousseyn Ousseyn daa mënut pom yi. dafa mënut pom yi. barke Sëriñ Bamba mënut a bëri. ponkol mu toll nii xam nga ne su mën na bëri ñu dégg ko ci làmb bu nekkee nii laa déglu ma yow boo xoolee Bawol kan moo ci mën bëre. gaa yi yëpp a niil amul ku fa niilul. loolu du ma si comprendre nga eh, yow yow dafa mën eh, kan moo yi barki <laughs> alxuraanu karim dafa mën a bëre. bëri yaayu mer de. ban non mer. bëri bëre nga mun bëri damay ñëw tëj adressé ngoor. man adressé ngoor. damay ñëw tëj ko yow benn benn mbapat nga fa mën foofu amul woon mbër Pape Maroon kese moo fa nekkoon comprends nga. lambu damaa naroon dem xoolal gars yi bañ maa jox sama licence bi naroon. foofu laa naroon defal lu bon war na kii kii euh, kii général mu tudd mbër boobu ki jëloon Arnatur ki jëloon galant bi. Euh, kii. Bulldozer. Bulldozer. Mhm. barke Serigne Fallou bëriwuñu deux minutes. kii def fii Dame une minute bëriwuñu ko. kii muy wax noonu. Euh, nanati xam nga déglu ba pare xam nga fan la juume bambaram barke Serigne Fallou Mbacké dama koo fayee comme xale. xale mu naan na ko fa. xam nga fan la juume. xam nga Belende. yàlla bu waaw Belende. barke Serigne Saliou ko jàpp def ko comme xale bu ndaw Belende xoolal li ci lamb ji kii xëjuma ci kawam. li may bëri sax fan la juume kii xamal fan la juume. comme tey jii ah. yow santal yàlla bu baax yàlla tey jii drapeau bi ni nga ko jël boo bëree wu sax da ngay da daan. loolu amut fenn parce que arxuraanu ko xam nga kan mooy mbër yow ngay bëre bëre bëre bëre ba nga ba nga ñàkk xool mën ngaa jël làmb ji te doo bëre dara. benn mos ngaa tag Dakar. comme ah mos ngaa tag fii Dakar. yow loolu ngay wax. <laughs> yow bi may bëre Dakar yow. fii adressé nga fii bëre naa fa. mos nga faa jël làmb. léegi mos na faa jël làmb man demi final laa ñàkkoon. <laughs> kii comédien la quoi. man comédien <laughs> yow mooy comédien yow benn drapeau nga fi mos a jël. yow doo mbër te boobu amul woon ay mbër. barke Seydina Mohamed. billaahi wallaahi. amul woon ay mbër. tabaski paase amul woon ay mbër. jël bi nag baa gaale ma yow tabaski paase. ban tabaski paase xanaa yow bii bii eh yow eh ku la kan big maama xam nga ko. fan yee kese la jël demi final daanoo moom moo jël nag ba Keur saa la dëkk. mooy ànd ak rek rek fan. xam nga ban seen côté dëkk yooyu. nga bëgg ne tabaski bu mu paasee. xanaa lambu jooju bu mu paasee la leer. tabaski ñëpp may seetaan ci télé laay wax ñëpp ak may seetaan damaa jël nag mbal mi lambaay laa ko jëlee kooku noonu damaa ñibbi si moo ma ne xëy maag tabaleer bu sa mbër mi nga war a bëre gis naa ko fee demi final lañ ko daal ku ko daan demi final man maa ko daan wax la wër gis nga caméra man li may wax dafa wër nag bi doo bëggee ma won la photo yi mu ngi nii photo yow photo yow mun ngaa nekkul bu nekkee ay nag rek rek rek toogal mbër ay nag rek laa laa de toogal woon na photo photo ah. nagam bu mu am eh, mosoo jël nag yow toogal a ah, ay nag rek yo toogal mosoo jël lamb yow <laughs> mais ngir yàlla promoteur yi ñuy seetaan. combat bi sa côté yooyu Ngunjaan foo dem. xoolal ngeen tëggal ñu ko. ay foo dem Ngunjaan ne Sa ah, Thiès numéro 2 Ngunjaan ñëpp xam. dugg Bawol ay ay Moso man su ma nee Sa Thiès xam nga lu ñu may ndax Sa bu 50 la. ba Sa bu 50 li ma def Sa Thiès 50 ko. mais lu tax kenn xamu la kon. dugal Ngunjaan nga laajte ma dugal yow kenn xamu la. dégg nga dugal Ngunjaan nga laajte Bawolam nga ma ay nii. te kii kii ci boppam kii dafa tardé ci la may dugg fii seen côté yooyu yow kese yaa taxoon may dugg si foofu àll. barke alxuraanu karim te mu de xamu ba kii kii kii fa doon dugg. maanaam li ma déggoon ne <laughs> carrière doon dem fee. côté Bawol bi côté Ngunjaan ndax di nga ñëw foofu mbapat yooyu. Ousseyn lamb jàngi fii man su ma jógee fii sama licence dama koy jëli soo jógee fii jël sa licence maa ngi ci terrain bi dimanche damay tàkk. man déggoo man maa maa lay. yàlla na nu yàlla boole lamb. amiin ma def la comme xale. baax na barke Serigne Bamba mënoo ko yàlla laa laa mënoo bëri si boppam sànq ba léegi sa téléphone moo ngi sonné ñu lay propose adversaire promoteur yi lay woo waaw loolu wax ñu dox sa diggante yow ngi may ñu ngi may adversaire depuis ca guddi ba tey ñu may woo Sam woo na ma Idaali ñu ngi woo na ma Assane Ndiaye woo na ma mais xamuñu kii loolu problème mais proposé leen ko proposé naa leen ko mais dañ koo xamul bëgg nañu sama combat mais ñeen lañ may wax mais dama leen ne kii ñu ma kooku ko kii nag sëñ bi na dem. yow maanaam déedéet xamuñu la xam la yow yow yow dama ëppale ay combat xam nga safoor nga victoire nga may xamuñu nga xam nga safoor nga continuel assurer sa dawal bi. déggoo li ma la sama sama dawal dama koy bàyyi fee dem lamb ji bëre ji ba ñëw xool continuer sama liggéey. sa war sax xam nga tax war sax am nekku si. Eh, dugg ci loolu xam nga tax war sax am nekku si. Ah. kii ba muy bëre ak tonnerre bi maa ngi bawol. boobu boobu. maa ngi bawol di sàmm ay xar ak i béy dëkk ba ak i ndag yaa ngi dégg seetaan ko si télé mu daan Tonnerre. boobu su ma demee ci lamb ñëw dakaar ba ba bëre ba mooy taxale moom mii kon tardé na te ba noppi ku ma nekk Sa mu ne ma xaw ma ko sama supporter yi sama ñëpp ku ma ne Sa Thiès ñu ne. sa waay waroo si maanaam day bi ngay bi ngay nekk eh, eh, seen de ba muy nekk Bawol maanaam day foofu noonu xam nga lan moo ko dugg ci làmb dëkk ak ay comme maanaam Bawol ba ay làmb la mu am yi dugg ci làmb ndaa du question tey jii ay ay. kii fan la nekkee mbër am xamul dara. dara la xamut. loolu bu ko wax. far nga xam moom foo taxaw ne mën dara nga xamut dara nga xamut. yow gabari nga am rek dugg ci làmb ñi nii. mbër am nga sens. santal yàlla. yow yaa war a sant yàlla bu wër. yow rëccagoo sa yow rëccagoo de. non man moom ñu ngi fii man moom mbër. baax na bu ma yeexoon guddi sax. te tey yoon may ñu jël ay avance yu bëri man xool bu ma lekkoon avance ñu ma joxee sama avance dama koy jël. yow ñeme woo ma sax bu ma joxee sama avance dama koy jël. bu baax. kii ñemewuma wala bu nekkul ci arène ba maa ngi koy xaar ci mbapat ba. kii ñemewuma na la ñemewuma barke sëñ Fallou télé benn yàlla laa de bu nekkul ci arène bi moom damay dem table ba. leen ngir yàlla laa bu ñu bokkul pour sax nañ ma jël dugal ma. mbër doo samp kii du du mbapat. kii du mbëru boo xoolee su ma koo gis ci lamb mbapat te man fii damay bëre fu ne. fan ngay bëre fu ne fan ngay bëre fu ne. Dakar ak Alba. Bawol Bawol ngay bëre yow xoolal ñun dañuy dem fii ba soo Sokone fu ne eh, dugg ci ndox mi fu ne dañ fay bëre dugg bool bi nga ma ay bërewu ma. mbër kon na nga lu de na nga ñaanlu bu baax. bu gaa yi xam la dégg nga. bu ñu yëgg fa. loolu wuti wuti wuti bàyyi wuti ñaan. parce <laughs> que sa kii safut <laughs> la mbàyyiwu ko xel. moo kii gis ngeen nii lay demee alxuraan da bu baax mbër. loolu rek laa am lu ma lay wax. pour conseil parce que tamit. re jarul sama wax na am nga sens yow yaa rëccagul ci boppam. am nga sens lan lu may may sens. xamoo ko yow ñu may daan ëpp la sut la. muy yow déggoo li ma la xanaa. yow ñuy daan tafaatin moo leen mun a mun na leen foofu ba fu ñu dëkk. lu tax ñu koy daan comme kii la. mënuñu bëri amuñu lii. nañu wax fii man a yow. déggoo li ma la du sa morom la mu am. moo tax exemple laa la jëlee. góorgóorlu moom mooy loolu. góorgóorlu nga fexe mel ni moom. kooku la mu am doo ko am na ngay déggoo li ma la xanaa. ndax bu dee yow tafaatin day sa morom. yow seen étu du fa tafaatin du woon kenn da ko fa mën daan. yow yow mënoo maa daan doo ko tafaatin. yow mënuma laa daan mënuma laa daan yow da nga waxal sa wax man nga wax. moo gën ngay wax ay tafaatin. dama lay wax rek exemple laa la wax looy jox yow bi nga ñëwee bi lan nga fi wax sa bopp tuddoo fi ay tafaatin gis sama fi tudd keneen moo tax ma tey ma ko laaj moo tax ma tudd ko da laa tax ma ne ko tuddaw ma la sama bopp mu ngi ma ne ko mu ma xanaa bi ma ñëw boobu bi ma doo nga ma ne ko tudd ma ko carrière laa tudd am ay numéro doo yi ne sama ginnaaw di ñaanal sama carrière numéro doo day bëri la 24 bii ñu jëm yàlla na ko yàlla suñu borom may ndam amiin Iba Mar lay bëre. xam nga kon gëm sama bopp a tax ma sant sama yoonu bopp mais su ma amoon fu may daw làqu damay daw làqu ci moom wala ba dem écréem dem ma sax écréem est-ce que amay dëgg écréem bawol laa dem bàyyil wax ji wax ji ngay bàyyi te nga wax sama diggante ak yow rëcc goo bu nu promoteur wooyee fii nu génnee du nuy bëri. wax boobu loolu moom yow laa koy wax yow rëcc goo yow yow yaa koy wax. mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaay bëy waxtaan ak ñoom ci seen carrière mais fi mu toll nii su nekkul carrière ñan ñoo nekk sa xel. ñi ma nekk sama xel kon li ma la rek ñoom Dame Sène ñoom Bour Sine. ñoom Gamou Gueye yéegagul wax Bour Sine nag waay waxal waay waxal nag nit na wax li mu eh, toloot. bii mooy sama dixième combat arène ñoom ñooñu gën da ca am kii. kenn amu ca douze combats. bu toogee fii naan Boursin moo taxoon tey jii année balance bi ma defoon moo taxoon ma bëggoon suqali ci kii dabe. dem jël leen dama la doon génne lamb ji nag. comprends nga année balance boobu dama doon jaare ji. ndax boo dikkoon li ma noonu teg. tey jii année balance boobu am nga lan moom dugal toog bu ko xoolaat sama yoon ba gars yi ma année balance gars yi ne ma ne boo toogee da ngay gën a da ngay kii moo taxoon man sa gisoo dara boo gisoon doo ma jël carrière jamono ji ñaka déggoo li ma la carrière jamono jii ñi ma ñi ma soxla woon ñoo ma nangu woon jël comprends nga moo taxoon Zal ñëw ne proposé ma carrière ma ko ne kan mooy carrière comprends nga gars yi ne ma ne yow jëlal rek yow comme da ngaa jóge ati année balance jëlal nga daan ko nga seeti leneen moo taxoon ma dugg ci kii duggoon nga ci sa musiba moo waaw baax na comme duggoon naa ci musiba yow li ma laa rek ba nii nii rëccagoo de li ma def ci yow baax na bu ñu yëgg fa rëccagoo de mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ñoo ngi may signaler leen temps bi jeex na xanaa mu bàyyi leen ngeen tàggatoo ba beneen yoon. atiwaat waaw Ousseyn lay sant bu baax di la gërëm di nuyu Castor ga ma jógee di nuyu DC Port parce que tamit ñu ngi doon waxtaan ñu ngi doon def yëpp combat bi tamit daa pare woon pour jàpp si bu baax nee na woon luy billet dama koy jënd DC bu Port kon lii. yaa ma gën a xam dafa jo dafa lii pour ñu sant ko parce que sax ñu ngi doon liggéey ak moom te xam nga amun woon toog pour wax moom nii yaa ngi dégg DC maa lay sant bu baax di la ñaar suñu futur maire de Castor waaw yàlla def la ngay maire parce que yaa son sont ñun gis nañ ni ngay def kastoor bi yëpp di sant aussi suñu monsieur le maire Réfane def gis nga li mu def si man mais nag bul bàyyi sa loxo monsieur le maire Djibril Thiaw comme na ko defoon rek yaa ma gën a xam comme day amaat léegi incha allah loolu. di sant taalibe Serigne Saliou Mamadou bu Serigne Saliou day son day son ci man bu baax a baax a baax di sant ko ci man ni Cheikh Anta dama koy fatte sama émission yu bëri te wallaahi asim du ma fii ci la moom la Cheikh Anta maa ngi koy sant di ko gërëm di sant safal baase sama xarit sama doomu ndey selu bu ndaw duma ma ko fàtte BM W sama xarit la sama doomu ndey la Kewel 2 di sant Sall Ndengler maa ngi koy ñaanal mu ngi jëm ci combat yal na ko yàlla may ndam. di ñaanal kéwél di ñaanal mbiri bool yëpp di ñaanal sama grand tafatin yal na dóor booy ñi amu daanu ci barki Cheikh ci sama xol laa ko tibi li may ñaanal gaay combat boobu suñu combat ñun ñëpp doon si takk rib parce que alxuraanu karim di woo nag képp koo xam ne nii bool bool nga di sant waa Paku Kanja Paku Soble xam nga woon baana baan laa Paku Soble Paku naajo bi bàyyiwuma kenn suuf si ñëpp maa ngi leen di woo. bàyyiwuma kenn daal képp kuy bëggee carrière rek maa ngi lay woo di sant sama yaay nag bu baax a baax a baax ak sama papa parce que sa dañuy sonn ci man suba ngoon guddeeg bëccëg dañ may ñaanal parce que alxuraan date bi su ma leen ko waxee ñoo ma koy gën a jàpp. 11 hmm. bii décembre 11 décembre bii billaahi wallaahi ñoo ma ko gën a jàpp fu ma leen waxee combat bi lee mu ñëw de ah ñun de ñu ngi lay ñaanal xam nga ñooñu ma seen fay. Hmm. ñoo tax may son sama yaay ak sama papa di sant sama rak. Serigne Saliou maa lay sant bu baax lu ma liggéey def ma koy jox sama rak la ñoo bokk ndey ak baay mu ngi si oto yi patron xam mbay si maa ngi koy sant bu baax Serigne Saliou su ma amee combat dootu de ñaar dërëm ma toogal lu ma liggéey jox xam nga loolu yëmbul di sant sama rak roxee bu baax di sant sama doom bàyyi bàyyiwuma kenn ku si mel ni bala bat sama grand grand jabe xam nga toog ni yombut parce que dañuy son ci ñun ñuy son ci ñun ñoo bëri parce que ñun ay champion lañu ñaana doon ëllëg mm-hmm. bàyyiwuma kenn képp kuy son ci man rek maa lay sant bu baax di woo waa Kastoor bi ñu gën a jàpp seen doom a ngi roi laa leen dig te dinaa leen ko yóbbul Bawol ak Kastoor. incha allah incha si jàpp bu baax ok. Sa Thiès Aja. maa ngi sant sama yaay Jeynaba Ndiaye kooku awma ma fayam xoolal tey sonn ci man barki alxuraanu karim amul amul lu dul def sama ci man di daf may jàppale xoolal ba damay rus ci boppam xoolal. di sant waa sama entreprise fu may liggéeyee maa ngi leen di sant man Dieynaba Ndiaye day ñëw xoolal day xam ne man damay liggéey di feyeeku weer de xoolal damay ñëw këram mu yëkkati xaalis bu bëri may ma ko maa ngi koy sant di koy gërëm di sant euh, Modou Sow di sant Pape mbay di sant euh, Modou Khoule di sant euh, kii. ñi muy sant ñëpp. Moustapha billaahi damay sant aussi mbay dama koo fàtte woon. Mbaye gis nga Mbaye Kër Masar Mbaye Kër masaar non Mbaye Kër Masar. <laughs> non am lu mat digoon. Mbaye Kër Masar ci combat baadu baadu baadu dafa am lu ngeen la. barki Seydina Mohamed daa am lu ma digoon ci combat bi. Kër Masar sax laa a pare te du ma te xam fu ma ne. combat bi moom xamut nu mu demee barki Seydina Mohamed xam di combat bi Mbaye. dana ma woon combat bi sama combat la dana ma woon combat bi sama combat la. ñëwal sama kër tëdd di lekk ma lay jox ngay lekk di naan mbay fudaay maa ngi lay sant di la gërëm di la wax gën a la jàpp yaa ne ci suñu ginnaaw amuñu ku loola o barke alxuraanu karim jàppal bu wër ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi lay ñaanal yaa xam loo bëgg nga jubóog sa soxna baax baax ci barke maam Cheikh parce que tamit lii dafa am solo parce que kuy jël téléphone am di la woo naa la mbir entraîné la kooku am di la jox xaalisam loolu yombul maa ngi koy sant mbay maa ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di sant bool bi yëpp bàyyiwuma kenn képp ku ma limbul rek xamal leen émission bi deme la wala sama xel a fatu di sant aussi Ramadan maa ngi koy sant bu baax champion la Castor moom tam maa ngi koy sant di ko gërëm. ni ngay santee nii signature ba nga ko doon santee ndax jour làmb ja naroo ko woon santee. mbër man mbooloo xam ne sama ginnaaw déggoo li ma la yow xamoo woon ki nga jël. yow yaa xamul woon ki ngay jël. man mbooloo daal di sama ginnaaw ministère des sports. ñoo bokk Fatick daf may jàppale moom tamit ak ma seen seen te muy. ànd ba ñun ñëpp lay jàppale. déggoo li man déggoo li man fu ma. dégg man jàppale wala yow kese. déggoo li ma la wax rek. waaw baax na man nu may jàppale du ko jàppale kenn man ak moom ñoo dëkk. waaye ñun ñëpp lay jàppale. jàppale la bu la nee mu lay jàppale. man moom ma ko comprendre nga dama ko sant. comprendre nga bàyyi ko mu sant ay ñoom ma seen seen xam nga dañuy ja dañ may jàppale sama combat yi barki alxuraanu karim yëkkati xaalis bu bëri may ma ko. war na yàlla man damay dem ba rus xoolal damay génn xoolal nit woo ma di sant Omar Kébé may jàppale barki alxu kooku day yëkkati xaalis bu bari may ma ko soxnam nag kenn waxatu ko. du ma manqué dara. lu ma bëgg mu ci ay Assis Ndiaye. war na yàlla ay ay ay kii xam nga ñan la am ñii ma la wax. di sant aussi waa solidarité bi jàppoo njojoom bi dañuy son ci man ku ci mel ni laat Aliou maam goor ñoo ngi li maa ngi lay sant bu baax di san xaadim sonal naa la trop lu ne laa lay damay dóor lu ne laa koy def xam nga ñoom Serigne Faye solidarité bi Alaaji Faye bàyyiwuma solidarité bépp maa leen di san vraiment son ngeen ci man gën leen a takku gën a jàpp. kii nag rëccagut mais nag xam naa rek mën nañoo am lu ko gën fu. doo bool bool. bool bool yi ñëpp laa woo man bool mbëru bool bool la man am dañoo am ci man yaakaar amul fu ma fu nu may séntu man parewu pour daanu heure bi pour muy leer. daanuwaat. dëggoo li ma la wax sama premier laa daanu. ba tey sama déglu ma waxu premier de. ñi lay déglu ma waxal déglu ma yow ma fii nii toog nga fii ne yow xal yow dèjà bu ma nee premier combat da ne daanu woo sama ginnaaw benn yoon la laal suuf jëlee woon defet sa deuxième combat bi nga jël defet bi. barke Seydina Mohamed benn yoon la sama ginnaaw mos a suuf ci làmb mbër yow mënoo maa daan waxal sa waxi bopp moo gën. waa baax na. man boo daanee sama ginnaaw boo dënoo ne sama ginnaaw ba noppi yaakaar ma. am empreinte bu ma marqué. boo ma yaakaar nag laa laa de ñoo ma ñoo gën a bëri na yow ñu la yaakaar. yow waa Fatick de gis nga waa Fatick lépp laa laa de. Fatick ah, man lañ samp man. kenn samp yàlla man man lañ samp. waaw. ban mbër moo fa nekk Fatick. kenn xamul mu kan. ban mbër moo fa nekk Fatick dama lay laaj. temps bi jeex na. mbër bu nekk Fatick wax ko. bu dul man di bëre fii arène. kan la man lañ samp kenn xamul la billaahi nii lay demee ci jàmmaarloo kontaan naa ci yéen bu baax a baax daal loolu ki nga xamante nii mooy Sa Thiès ak carrière mbokk yi damaa bëgg nag combat bi gis ngeen ni mu demee promoteur yi nga xamante ni nii ñoo ngi fii bu ñu ma mënee sovel journée bi bés bii wala boo combat bi dina nekk combat boo xamante ne combat bu neex la ndax ñoom ñaa bëggante nañu te combat bi yàgg nañu koo waaj ku waaj combat ñetti at ba yegg si ba fii combat bi yàqu ndax décembre le 11 décembre la ñu waroon bëree su ñu ci mënee jàpp rek dugal leen ci benn journée ñu yeggali seen bés dina baax trop maa ngi gërëm ki nga xamante ni nii mooy meeru jàmm gën si Kab Mbaaw xale la boo xamante ni nii moo ngi jàppale waa jàmm gën si Kab Mbaaw doomu ndey Mamor la doomu ndey Doole di ko wax na nag na góorgóorlu gën a liggéey maa ngi gërëm sama président Lat Diop bu baax baax ak Waly. daa am lu ma fàttali lu ndaw rek. damay sant sama coach bu baax mbay instant yi yaramam dafa xaw a sutante. dama mm-hmm. koy ñaanal yal na ko yàlla wéral. di sant sama coach su père sec mooy ma yor damay woo suba ngoon guddeeg bëccëg. billaahi wallaahi combat ba mu taxee ba tey amul benn sur bu ñu tàddee xeex bi combat bi nañ cee pare woon loo xam ne nii mënumaa toog fii di ko wax barke Seydina Mohamed mbay nag dama koy ñaanal sama xol bi ko tibb yàlla wéral cëram ak njabootam yëpp. maa ngi lay ñaanal di ñaanal Baye Fall di ñaan waa Salba di ñaanal sama waa egg di sama coach su Fallou Ngom tamit maa ngi koy sant di santaat Cheikh Diouf bu baax di sant Bada jon maa ngi bool yëpp maa leen di woo leen wax seen doom a ngi jàppale leen ko parce que sa li pomme yi mën naa ko lépp a ngi fi kon gën leen a jàpp yéen a ngi jàpp sax xam naa loolu yéen a ngi jàpp yéen a ngi ñaan mais gën leen a jàpp yéen bool bool yi daa am lu mu bëgg a andi. bool te jàpp leen waaw Kër Massar dañuy sonn ci man dafa day sonn ci man wala day sonn ci man comprendre nga waa Kër ma nag aw ma seen fay ñoom ñëpp sama waa fan si club ñoom ñëpp mafia bi aw ma seen fay dañuy sonn ci man war na maa ngi leen di gërëm. amoo mafia. maa la ëpp mafia. di leen jox dig daje ba beneen ci Wassare gisoo xoolal sama sama entraîneur sama entraîneur dama ne xoolal sama mafia yi bu leen yóbbu fee balaa carrière di bañ a dugg ci foofu noonu <laughs> barki alxuraan <laughs>